mbër dina màgget ci doole mhm. wax du màgget ci gàllaaj gàllaajam na ndax gàllaaj mhm. mun naa téye nit fa mu taxaw te du buuse boroom du mën a teg tànk ba beneen di ko fekk ci ak njumte la ci yow mi nga xamante ne nii dañ koo rek ci doole japp ni fim nak da ngeen mo ëpp ki di ëmb seen doole ba ni tax nga ni mën na ko daan comme ni ko sunu yaay boy waxee rek mbër mën na magget ci doole waye mbër du magget ci ay gal ak tay tam nak kula mag ëpp la ay sagar loolu la wolof lepp Senegal TV yow ya ko ku ne mën na wax xalaatam ci Senegal TV numéro Senegal TV moy le 77

mane Lac de Guiers bu mu ba yi muy daane nu mu leen daane ñu ñu muy daan nu mu leen daanee nag man loolu moo ma gën a jaaxal ku daan Yékini daan Tapha Tine ah boo daan Ama Sène ñaari yoon Modou Lo Baba Sow Ousa Sow Yékini Junior Jos Boy Niang mu daan ñoo ñëpp ngeen ne mënul mënul bëre ah layti Leyti dangaa far kay dangaa far loolu kay bul ko bañ yow say commentaire yëpp ay far la yow commentaire yoo de gaa gaa gaa gaa yi ñooy commentaire waaye commentaire yoo de même Ibrahima mi sax ay commentaire am sax dañ koy xool xoolaat xam dina analyser mais dina ko yàq ci ay far mais yow li lépp looy commentaire ak ay far la far la euh, Leyti boo taxawee wax ne Eumeu Sène amul clé bu muy daane Lac de Guiers est-ce que loolu analyse la. Eumeu Sène amul clé bu muy daane Lac de loolu analyse la Eumeu Sène daan Lac ma andi la photo bi ma ne la ndax lii jële am na wala amut nga nga ne nga ne jële amul xam nga ne layti layti suivre say commentaire sax euh, kiiwul quoi kiiwatul neexat yow neexatoo commentaire al Cheikh Sarr tënk tënk nga wax ji de waaw Cheikh Sarr tënk nga wax ji ah wax ji léegi sonn na wax ji daal yëpp benn la ñëpp loolu la ñuy wax Sénégal njaay yëpp li ñuy wax ni loolu la ñuy wax mënul bëre mënul bëre dafa ragal rek ngay dégg oh. Lac de Guiers VIP yëpp moo gën a euh, waaw Lac de Guiers amul défaite amul défaite amul défaite kenn mësu ko daan waaw Balla Gaye daan nañ ko ñaari yoon ou ñetti yoon mais champion la mais euh, Lac de Guiers ku ko mës daan ah, moo gën a néewle ay défaite te muy daan ay mbër yu mag te ngeen ngeen ne kooku mënul bëre man de moom man de xaw ma léegi mu ne nu muy def a ah, day rey gaay kon Cissé Cissé man man nangu ma ne Sénégal gi yëpp ñoo ne Lac de Guiers mënul kii de mënul bëri de ëpp làmb gi nekk gi rek ba tuuti gi rek toujours nga dégg fi nit taxaw ne Lac de Guiers moo dàq bëri si làmb ji waaw ëpp làmb ji rek toujours nga dégg ko waaw boo def microcentral léeg nga gis nga gis ay nit ñu la dëggeer gars yi dàq ñu ko kii dàq ñu ko bëree dañ ko gën a waane mais dàq ñu ko bëree waaw la muy daan la gars yi daan lay daan te moom la ñuy daan gars yi kenn daanu ko ko kii naan moom mënul bëre la dëggeer mënul bëre moom moo mënul dara moom poussière la jot a bëre affaire yi metti mu daw yow ku bëreeg Tapha berek mudlo Lo ah bëreeg Boy Niang bëreeg Zos bëreeg Papa Sow waaye bu ma limlo fi fii dan daan iya Yékini waaye boy boy booy ko boobu Lac de Guiers mënul bëre Lac de Guiers bokk ci mbër yi dàq ci ji mu ñu nan munul man mangi, ngi Colline Rwanda mangi ngi Rwanda fi mu dama dem Rwanda foofu ma ne moom réseau ma réseau bi moo baaxul foofu dara dara dara dara waaw maa ngi boo euh, boori Kigali yooyu foofu laa ne ah loolu tax ngeen ngi jëm a lool waaw ah, waaw mais bés bu nekkee guddi kay bu ma amee jot damay teew leen déggul waaw waaw. père bëgg naa <laughs> loolu nekk yow koo xam ne nee na moom footballeur la woon footballeur la woon li ko dugal si làmb xam xamu ñi nga xam ne biñ nekkee xale toj bapat fu nekk jël drapeau fu nekk ah yow nga fekk leen ba ñuy bëree yow yaa ngi football fooy football sa xel sax nekkul sa sa sa làmb ah nga ñëw dugg si làmb ah am tur yiñ am ah tey la de guerre mbapat mbapatkat ñi mbapat toj làmb jëpp benn tour lañ ko rawee mooy tour tur roi de arènes mais tey boo doon seen VIP yës kaw da nga siy boole la de ah. te ke ñom ñu leen japp leen daan mom kenn duko japp kenn musu ko japp daan ko han ah? nañu waxante deug nak la dafa mëna bëré bëré kat la ku ko gis ba mi daan boy ñaar ñom ñaar boy ñaar bi mi jël responsabilité pour dem daan la de guerre dañoo dami ci tank lu boy ñaar lal sa way dindi te ba la de guerre la lalee boy ñaar num def dafa door fes door 4 ap koo ñaa moom <laughs> la dëgg moo gaaw si de la eh, de guerre ku ko mos a daan seen jëlee ma am na am na amu na neuf neuf défaites dix victoire la am carrière am yëpp dix victoire la la de ñaata ñaata victoire la def ku ko mos a daan te ama bu yeen bu ñaaw bu rek daan na ko waaw waaw ko am dix neuf defet kay kooku moom yow xam nga ne moom mënoo taxaw kanam la dégg ne champion nga bilaay walay lu lu lu wër na wax li li li la ya, dëggeer daan si jël yu leer Eumeu Sène daanu ko si jël yu leer Eumeu Sène li muy mën a mën a macha allah champion la am na xadar bi mën na bëree der la wax dëgg dëgg yàlla ya Lac de Guiers li may wax toujours rek te du ma jóg si di ko wax gars yi dañ ko dañ ko dañ ko ëpp caacaayu mbër dañ ko dañ ko gën a jekku si mbër gën koo yor jikko yu mbër mais daa ko ñu ko bëree waaw ku si ku si moom boo ko mënta daan sax tëdd bi ngay yëkkati léegi yow dootoo bëri moom parce que sa sa mémoire du gën ni mën nga koo daan tëdd di ngay jéem a yëkkati bi yëngatoog di vivre rek yooyu public bi di jóg. am nga Lac dafa deful mbapat comme ni gars yi def mbapat ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo moom deful mbapat boobu def na mbapat mais mbapat bi bariwul waaw loolu tax moom eh, borom ak gars yi dañuy xaw a am différence tuuti wute tuuti mais ku mun a ku mun a borengu moom day calculer day analyser waaw day analyser moom day analyser ba mu jeex balaa muy dugg action bi daf koy analyser daf koy togg ba mu ñor mu soog a déclencher action bi waaw saa soo bëggee dégg dëgg Eumeu Sène nangul naa ko mun na bëre de nangul naa ko ko mais na ma limal ñaata combat la fi mu Eumeu Sène jàpp mbër def leen action daan leen na ma ko limal waaw ma ne xam nga boole Lac de Guiers ak Ama Sène dañoo uti Lac de ni gars yi ma def mbapat moom deful mbapat boobu. def na mbapat mais mbapatam parewul mais jëlle yu muy daan ay jëlle yu wóor lañ ku daan Yékini daan Papa Sow daan Moustapha Guèye Martignac ak Baboy Martignac ak Modou Lo koo ku ne munul bëre ko day wax da wax lu la neex rek non maanaam su nga sit sit boobu bi mu amee képp ku xam sit xam nga ni tey lat bu toppoon bu fekkoon tey mbër la boo xam ne eh, eh, làmb jaral na ko lu bëree bëri bëri bëri victoire boobu dinañ ko delloo wala ñu annulé ko waaw wala mu doon mbër mu am tur parce que am na mbër yoo xam ne tey boo daanoon nit ki ba ba ba ba damm loos bi mën nañ laa ba a jox sa sa victoire mais site boobu moom dafa leer nañ Eumeu Sène bi mu bi mu jàppee tàng bi la ko la la la dëggee dëj fes bi waaw. en tout cas Père Birahim Ndiaye man bi ma koy déglu déglu naa ko it lu leer la wax mu ne ku maanu tey wax te yàlla rek tax sa aqulaayu taala xam nga ne mbaa boobu jël amul te ñëpp nangul nañ ko mun bëreem ñëpp nangul nañ ko xam bëreem Moustapha yi ngi nii vidéo boobu ma dugalaat Moustapha Gueye wax na ko te man avant que ma koy dégg ci ñoom yëpp loolu laa gëmoon billaay wallaay loolu laa gëmoon te nit mënuma cee dindi moom man moom li ma gis joxe jël làmb jooju moom d'accorduma ci bëriwaat moom d'accord naa mais joxe ci jël moom d'accorduma non non yow tons yow tons xanaa tey kii woo yow gars yi werante lool de xamoo li ñuy wax bopp bee jiitu kii bi fes bi moo jiitu bopp bi tegu du ci bopp bi du ci foofu bopp bi daa laal fes daf ko gitaar dem saa waay jël ngemb li ci suuf ñu àndandoo dem man fi ma doon seetaanee làmb ji mu tën la ma fekkoon mais dama jug jubilé wóor na yàlla dama jug jubilé pour man la déggee eh, jox nañ ko victoire am barki yàlla affaire bi demawul ciy fes bopp bi dafa jaar ne fes yaa ngi fële fesu la dageer kenn mu ngi ca ginnaaw intérieur bi la caméra yi joxuñ ñu ko woon mais ëmma seen moo def action loolu mooy problème bi li Eumeu def action nag looloo tax xam naa ne si loolu lañu mën a basé wu mais du du loo xamante ne lu leer la. <laughs> no xam nga commentaire commentaire dafa neex quoi parce que commentaire tey boo nee la dageer amul technique la dageer benn façon euh, benn façon daan la fiy daan benn bëri la fi am ñaata kale la daan. ni nga ko ni nga ko limalee Eumeu Sène limalee ko Modou Lô lima limalee ko Balla tey xool ay victoire la de ndax ndax eh, dafa dafa topp rek daan plaqué wala ñaata plaqué la la daan kan la fi daan plaqué kan ak la fi la de guerre daan eh, plaqué nga seet ñaata victoire la am amaan na yeneen yeneen combat yoo xam ne du victoire du plaqué te prise yu garaaw la lay def waaw